ñëwal mi ngi leen rakkam yu baax yi di sëriñ Bachirou Mbacké moom sëñ Fallou ak rakkam ji. Serigne Bachir Mbacké Cheikh Abdoul Khadir ak Serigne Moustapha Mbacké Cheikh Abdoul Ablaye Ablaye Baye. Mbooloo ñu ngi déglu léegi courant bi ñëw na courant bi mënut a dem fenn ñëw rek lay def. nuyoo bi noonu ci. teewal fii Cheikh Sidi Moukhtar mu sëriñ Moustapha ak Bachir di di di njabootu sëriñ Tuubaa gi fi gi fi gi fi gi fi nekk gi fi nekk ñoom rek tax leen a jóg ci moo tax moom li ci jiitu woon tey war koo wax fii wax na ko wax na lépp moo ci dolli dara man ko war a waxee nañ ko war a waxee Cheikh Bass wax na ko kon loolu moo ci dolli dara li mu ci dolli rek moo di cant ak soññu ak ñaan cant gi Cheikh si li waxtaanoon lu xam nañu koy sante ndax damay wax ne dama koy wax ne ko sa yéene ci man defar na ma sama tey ak sama ëllëg waaye yéemu ci ñëpp bépp xeetu tànn bu ñu tànnal doomu aadama mën maa wax ne defal na kon kooku mën nga koo sant walla ginnaaw moo fi nekkee sëriñ bi ba gën a jox sama lépp sëriñ Touba ne fi wetam di gër ba waxtu bu ne may yeesa sama jaayante sama diggante sëriñ bi ci wetam loolu loolu loolu rek laa koy xoole loolu rek laay sa sine nekk moom ci wetam moom rek lay diglu di sant njaboot seen toit yi nga xam ne ñoom itam ñi ngi fi te sëriñ bi rek nekk ci ñoom sëriñ bi rek nekk ci ñoom moo waral barab bi ñore leen nii mu leen ñore te it xam waa kër Cheikh Ahmad Bachir ñi fi nekk dañ fee nekk nekkal leen bi wuut leen ci taxawaay bi waaye ñoom xam nañ ne noo ko bokk ñun xam nañ ne ñoom noo ko bokk kon ñu leen sant di leen gërëm bu baax di ñaan suñu borom gën leen a sàmm te gën leen see bàyyi. buñ leen a kàttan nag ba kenn ku ne la nga liggéey da nga yéene ci liggéey ba xanaa kon loolu defal la ko su yéene àgg si ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax dama ko ne sant rek laa ciy dolli ak soññi sant yi tam dëgg la Cheikh Bass wax lépp ma ko waxee waaye ku Mouhamed mi toogee dana ni man dama ko ci dama ko ci kër Sëriñ Basiru président yi yëpp yónni ko xam na ne yoon yu neex lay doon yebal ko mu ñëw fii ci bërëb bi ndax moom noonu la ci yem xam na ne ci pàggute bi la jublu ndax maamam boo ñëw ci Cheikh Mahmoud Bachir jébal ko léppam jébal ko njabootam moom moom mi ci loolu la ko sëñ waxee rek ci président ñu ñëpp dig ñi seer ko seere ànd nañ ci ah, ah, ndax bu mu rek moo nga ci dig kon ñi ma ko waxee dégg ngeen ko loolu rek bu ñu doon wax loolu rek la ñuy waxaat ñu mm-hmm. ngi sant di gërëm ci taxawaay bi na ni ko xam ne waxee itam yéene jim am ci moom jëmam ci président ak ndax cër bi mu ko cëral ak doyloo bi nga ñeen ñu ko ak di bëgg ñëpp ñu ñaanal président yàlla kattanal ko mu àggale yeneen ñi ñu bëgg ci réew mi mu àggale ko nam ko bëggee weddi waaye xam nañ ne xam nañ seen yéene xam nañ ne ñoo ñoo ñoo ko bokk xam nañ am xam nañ ne xam nañ ne am na yéene ji am nañ bés yéene danga yaakaar yaakaar na rek te xam nañ ne ni mu yaakaaree soxla si noonu noonu lañ noonu lañ yaakaaree soxla si kon nag bu la président yëpp yëbalee nga demee ñi nga demee ci kër gi boole la ak ñoom ñi nga ànd ak ñoom ñëw loolu dana doon suñu dëkk bi te wéy na ci noonu suñu cant la suñu ngërëm la suñu xol bu sedd la suñu xel bu dal la loo ngi sant bu baax a baax a baax ni ma ko waxee rek waxee Seex Bas ji pour mu ji pour mu jëndale dara ndax dara mu jëndale dafa waxoon ne sant ak soññi cant gi moom mooy li mu weesu di si amoon solo lépp Seex Bas wax na ko kàddu yi ma ciy dalee jëme ci dolli itam ci ci biir ci biir wax bi laa ko dugal la ca kon mooy suñu sonn fi soññ bopp rek ñu góorgóorlu bu baax soññ suñu bopp nga xam ne kenn ku ne ci ñun bëggu kenn nga te nga leen yàlla lay jóg ci ngeen wala yàlla lay jóg doomu aadama wërsëg dombale dara boppam ci lu baax kon ñun ñëpp war nañu jógaat gën a xam fi jamono toll gën a xam it ñun fi ñu toll suñu diggante suñu borom ñu sonn ci suñu bopp suñu borom moom du liggéey kenn ëllëg comme dama fay doo liggéey ëllëg gis ngeen Cheikh Xadim mi ngi fii tur bi rek doy na ne xam ne mën na cee dégg digg ne Cheikh Xadim rek il faut que mu yëg digg mu borom te loolu rek solo. soxna su baax su sell su tedd si nekk fii doy na firnde ci bëgg lu di sàkk lu baax te mu dëgg ci yow te te di ko sàkku ci sa ko sa suñu borom moom mi moom moom moom mi moom mooy njëkk ci dindi te dara ump ko kon ñu am la baax na lu si am soxna si am na lu mu am ci boromam te ñoom ñëpp li ñu bëgg mooy tegu ci yow yàlla rek loolu yàqal dara suñ suñu àdduna dana koy deewalee wala defaral na ko ba mën ko jëriñoo ba dem na ëllëg nga xam ne fa la njëriñ la nekk fa la taxe ga nekk fa la ngëneel ya nekk la xéewal àjjana sax nit yàlla ñi ñi xam yàlla dëgg taxu leen a jóg ñoom mbir yàlla moo leen tax a jóg kon nga sonn suñu sonn suñu bopp bu baax lu nu naqari ci àdduna ko def suñu bopp àdduna laay wax lu ci naqari rek noo ko def suñu bopp da ngeen fi xam waxuma la sax bu fekkoon ne jàmm dafa amoon jàmm bu fekkoon ne jàmm moo amoon dajal àdduna dëpp am na yàqute bu nekk ci ci dëkk biir boo xam moo gën a bon ay gën moo ëpp ay ay moo ëpp ay bon wala ne bon di nekk ci ñun mooy yëf lépp moo moo tane ba muy xale moo tane yàq te gi nga mi ngi ci ñun te it dafa wax dafa teel doomu aadama doomu aadama kon war na xam boppam waaye doy di tàggante ak ñàkk xam loolu rek ñu jàpp waaye kenn bu ci yoon lu baax dong nga bëgg bu caaxaan ngay digg def bëggatoo dara lu baax ginnaaw loolu la demee nag dañ koy bëgg te nëbu ko te te xam fa mu fa mu fa mu ko fa mu ko fa mu ko mën a jëlee ngor rek mooy mooy lépp mooy def mooy dindi moom lépp nga leen yëpp da koy jeexal dara waaye umpaliwul dara tëlewul dara dana góorgóorlu bu baax ñu génne suñu borom ñëpp a ci yem am góor amul jigéen amul amul mag amul ndaw kenn ku ne la ko jig mooy na jëkkër jëm ci borom ah du ko yàqal suñu bopp may na lu may borom. ah waaw. sañ na sa nguur sañ na yëpp ci njub lañ ko amee ci njub lañ ko defee waaye njubu aar rek la njubu sama borom bokku ci njubu sama borom mooy gëm yàlla di ko jéem a xam waxtu wu nekk di jéem nekk ci loo xam ne moom la gën di jéem a daw loo la bañ loolu mooy njubu yàlla alxames yi ku ne. loo sàggan sàggan ak boo fàtte loolu ko nekkoon sàggan ji la lépp suñu borom noppi la ku bëgg a xam mën ngaa xam boo mënta jàng it boo laajee ñu wax la nga ne góorgóorlu ci xam suñu bopp xam suñu diggante suñu borom lii dëgg-dëgg xéwal yi ak na yii ngeen defa ne xéwal sa du dara du dara ci li mu bëgg ndax li mu bëgg mooy mooy texe ñun ñëpp texe la bëgg mujj tey ëllëg loolu nag dara ëllëg ko maye. jublu saa borom suñu borom koy maye di ko jéem a xam gannaaw ba mu ko gëmee di jéem a nekk ci lu ko neex daw la ko naqari ku ca sax dàkk suñu borom muy liggéey ëllëg texe ni fii nga koy tàmbalee yëngu ci bopp. boo tegee ci yoon waxuma la ëllëg gën jiw nag nga xam ne fa lépp nekk am na waxtaan su su xet laaj ci mu ñaar rek ci mu tënk ko ndax ma ne wërsëg moom ñëw bi wërsëg ñëw ma ngaa jël loolu moo ma ko wax loolu la ma ko wax loolu la ma la si mu ne ma parce que teewul moom teewul moom misaal ko sax mu ne ma ab dërëm moo fi ñëw ab dërëm moo ñëw ci àdduna pour que ñëw fi mu ngaa ab dërëm moo fi ñëw mu ne ma dërëm nag dërëm bi ñeenti fi ci ak tànk yëpp soo laay ko moom tànk bi la ñëpp bokk banque yeeg alal yeeg lépp niñ ci tànk bi or bi nekk ci doj yi jamaa bi ci nekk yëpp kon loolu loolu lépp ci tànk bi rek la bokk. lépp war sa ñëw fi ma laaj la. waaye nan nan xam suñu bopp. wala xam ne karam naa bani aadama la suñu borom wax moo ko wax te dama ko waxee ni la ko defee. waaye nag bu ñu góorgóorlu daanaka jugee jooju ci suñu jàngante mën na noo woon ginnaaw suñu borom taay ba ñu yéen di ruus ba ñax tàkk ñàkk a dese dara rek mooy jàmm jëm ah safara yu fan di liggéey dugal ñëpp a bëri liggéey kon nag góorgóorlu xam suñu bopp dañoo bind ci teraanga bu mu ko yàq li ko defar nag mooy jëm jëm ci yàlla rek dañu góorgóorlu ci ñun suñu góorgóorlu ci ñëw suñu diggante suñu borom. góorgóorlu ci lu diine buñ ko kafe buñ ko caaxaane ku xamul da ngay laaj wala nga dem jàngi dara lay amut ku bëgg a xam sa diine mën nga ko xam boo ko xam ngeen ko jëfe te def digal rek tax nañu ko def yàlla rek tax nañu ko def lan foog suñu diine waaw ki ki nga xam ki féeru ji ak ki jàng ba ba jeexal ñëpp fonk nga doon suñu diine rek mu fekk moo ñu jikk leneen jikkuñu leneen jikkuñu ko ñu doxal ak daal ci diine bi tam amul nga benn njëriñ yàlla dugal boppam gindiwu la dara li nga ko yor doo doo yàgg yàgg li nga li nga ko yore lu tax nga am jàmm lu tax nga am jàmm ba mu yàgg yàgg rek nga dee wàcc ko loolu amul loolu ci loolu loolu loolu loolu amul solo amul solo te dund yàggul waaw maa ngi jégalu waaye li am rek laa wax. dëgg la dama leen ko yéene rek. da nga noo bëgg a dimbali. dama yéene sama bopp rek laa leen yéene. dëgg la Mbacke da nga noo bëgg a dimbali. wax nga la yéen ñii toog yéen ñi dañu toog ak yéen ñii fi nekkal réew mi dama leen ko yéene rek waaye nii rek la mbir mi dal dana góorgóorlu waaye mën naa nekk mën naa nekk. du tee nu de ci dem ci biir yi du tee nu jëm ci àll bi di bay du tee du tee nu nu nu nu sàmmi waaye lu mu mën a doon lu mu mën a doon dañ ko booleeg rek jublu ci yàlla jublu ci xol lañ koy defee ak xel. la sa xel nii loo ci mën a gis bu ci gis mukk laa mën jëriñ lu gis yàlla sa xol bii loo ci mën a bëgg ak lu mu mën a doon bu ko doyloo mukk na xol bi bëgg yàlla rek bu loolu xasee am nag. teraanga ji suñu borom moo ko moo ko ko defal mën na doon suñ yu neex mën na doon oto yu neex mën na doon dëkk ci kër yu neex soxla yu baax yu neex loolu lépp suñu borom may na li moom mu ngay gën a gën a lem yombalal na la ko waaye nag bu mu tax ñu fàtte ko nag boobu daawal gën a gudd dañ ko war a jàpp ci mën dafa ko gàttandoo dimbaleen ci gën a lëm ak yërmandeem yërmandeem du jeex kon dana war a dañ ko war a xamee noonu eh, eh, ko sant di ko jaamu suñu kenn gàtt xool seen si tëdd si tëdd fii ah. xanaa fanweeri at léegi daal demul yaa dañ ko waaw waaw fanweeri at la fi am moom la fi am léegi ngeen jël di ko suñu borom defal ndax boo jib kat donc donc boo mànd la du jéng ci benn jaww du jéng ci benn jaww suñu borom bokk da koo jib suñu borom lépp bayam de yëpp ndax lim nu may bu yéene lu baax te di foog mu defal la ko ak yiw boo yéene lu bon te di foog mu defal la ko ak yiw boo defee benn yiw mu def mu tàmbalee la ko fayee yiw benn bu nit fukki yiw la koy fayee te alfa andi na ma nga ne benn yiw boo def la ko juróom-ñaari téeméeri yiw lii mu foofu ma nga def benn ñu defal ay junni ji yi yombal na loolu wax dëgg yàlla yombal na yombal na liggéey bi de buñ dee ay jaamu sant ñu ko jaamu itam day li li li li li li muy li li mu faaw la jaamu jaamu yooyu xel mënu ko def ci biir ci dara li jaamu solo rek loolu wax nañ ko góorgóorlu nañ góorgóorlu nañ dugg ngir yàlla. dañ fonk suñu diine di ko jëfee ngir yàlla ñu xam nga Serigne Touba hmm. waaw ñu xam Serigne bi Serigne bi biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis ci borom rek la nekk boole ko dara dafa dara la ci. sëñ Moussa xas jënd di am moom lañ ko xam ne ñu ngi jàng na ne gannaaw wala sëñ bi weesu na ko moom. loolu la ñu Moussa Ka wax loolu. dëgg la te woy ba ñu ngi jàng na gannaaw waaye sëñ bi weesu na ko moom. kon nga xam sëriñ bi kan mooy sëriñ bi waaye sëriñ bi kenn duñ ko xam xam xam xam mooy xam yàlla rek buñ ko bëggee xam nañ dellu nañ jéem a xam yàlla rek buñ jéemee xam yàlla rek buñ ko xamee rek xam sëriñ bi waaye ministre bu la yàlla ba def day xamante sëñ bi sëñ bi nag lépp la jiw yéen mën a gis suñu borom dañoo wax ne yéen mën a téeméer bu la téeméer la benn ci képp te suñu borom séddale bindee fii mu ngi ci yéen mën a benn bi képp ñoom ñeent fukki ak ñoom ñeent yëpp moom dañoo ko yéen a jàpp. la ilaha illallah. kon wax dëgg yàlla doyal bi noonu daal la natt ci doyal bi rek waaye waroon na ko mën a gën a teel a xam waroon na mën a gën a jëm teel a jëm ci moom waroon na ko mën a bàyyi suñu lépp. sëñ bi mooy exemple mooy mooy exemple bi sëñ bi mooy exemple bi. dana di wax ne sëñ bi ñëwul kenn ci boromam dafa koy ci digal nag. Hmm. dafa jëm ci boromam borom di ko borom bi yonent bi mu nekk yonent bi ba ba ba yonent bi delloo ko borom. barki jëm rek wax naa baat bu rëy dama ne sëñ bi soññal ñu baax ñëpp ñu baax ñëpp hmm. sëñ bi soññal seen seen seen borom. waaw dë dëgg la dëgg la ma. loolu laa xam loolu laa gëm. loolu laa jàpp dama dëgg. loolu lépp suñ dee. lépp lépp lépp dafa jeex dafa dem ci dafa xam ko dem ci ko ko yëpp rek. loolu moo tax suñu borom la daf lay yëpp. moo tax dafay dañuy bàyyi. day yéex ëllëg dem jëm. li ci bàyyi ëllëg lay fay. kon loolu rek la. na nga góorgóorlu si wala yéen ñëpp da ngeen ko dégg dañ góorgóorlu ci ñëpp moo ñu jib dañ góorgóorlu ci xam suñu diine fonk ko dañ góorgóorlu ci taal bi ndax ci lañ mën a ci lañ mën a sant Sëriñ Tuubaa dañ mën a defal dañ góorgóorlu ci ñëpp dañ góorgóorlu ci fonk suñu diine dañ góorgóorlu fonk suñu taal bi loolu jëf jëf ya ciy juddu te njub bi dañ ci def lépp yàlla na yàlla tax a yooyu ci yooyu nag. suñ fa suñ borom fayee rek moom benn bu ne la waxee lan lan suñ borom di ay kër yoo ne ay ay ay ay ay ay kii yu mel bare bare bare la ñu dafa doon ko def loolu. bu ma li ma déggee ci bu ma ci dara la loolu bëgg ñu teg jox la loolu yéene ñun ñu ngi góob ak ñaar ñëw nekk waaye nag ñoom ñoom ñoom ñaan ñoom ñaan pour borom ñu def di ji ñoom koy ñoom koy ñaan ci barke ci barke. jërëjëf. jërëjëf Mbacke. ndax moom di ñaan mbir mi de. jërëjëf Mbacke. kii yëkkati dégg nga waaye nan kon moom koy ñaan nan nanu gën a gindi nanu gindi nanu gindi ci lislaam gindiwuñu Sëriñ Tuubaa gindiwuñu ci lépp lu baax. te mayu kattan nag gumba la dawee lu bon loolu maa ngi koy ñaan waaye dara loolu njëriñ ji rek la waaye moo ngi ñaan dooleel lu mu fa may mucc tey ak ëllëg ñu ko may te du ko wàññi dara te dara du ko ci fekk ñun suñu borom may ñu defar ñu tey ëllëg yow dafa lool waaye bu ñu ko wala mën a war a jox ëllëg ko bëgg moo gëm bëgg ko wut ko te ñu mbokk la jeex lépp yàqu la loolu yëpp ko kon lan ko bu baax la ñu gannaaw loolu bi waaw ñaar ñi ma waaw dëgg la dëgg la dëgg la yaakaar naa ne moom dina ko ñaan ñaan ba ba ci ci ba yàlla dolli xéewal ci réew amiin yàlla gën a sàmm réew mën na am yaa gën a am yaakaar sax ndax xew xëy bari na lool te la ci gëj yëpp moom tey mu na am yaakaar yàlla yàlla sot gën a sotti xéewal ci réew mi yàlla suñu noo gën a sàmm réew mi yéen ñi ko jiite président bi nga jiite am seen moom bëgg réew mi ci kanam yàlla yàlla gënal ñu kàttan na leen ba ngeen agg seen yéen ci ñoom waaw yàlla moom def moom mooy def mooy dindi waaye nag waaye def defaral na ko ba mu jekk doy na ko ba mu doy mu delloo la moom dara amul ko jaay ñun ñëpp maatam di ko jaamu ji daal amul amul amul lu leen dee ñun ñëpp maatam di ko mooy bañ ñu mu wàññi dara kon jëm ci mu rek moo am solo yàlla yàlla gën a gindi boppam gën a gindi ci Sëriñ Tuubaa gën a gindi ci lépp lu baax kasam na ci ak dimbal dañu boole dimbalam dara ci gamaat boppam gàttal mën a andi ba. loolu rek la xol yi sedd na xol yi sedd na xol yi sedd na xol yi sedd na xol yi sedd na